fi teew yëpp jiital ci sang yu tedd yi teew te toogal fi famille sëriñ Serigne Mouhamadou Lamine mbakke di wax rek ne CRD tey bii wax dëgg yàlla euh, xol yëpp tooy nañ xol yëpp tooy nañ ndaxte bu yàggul rek la ku màgg ku nga xam ne nii dayoom ci wàllu baatin dayoom ci wàllu xam-xam dayoom ci wàllu dajale nit ñi waxuma sax tarixa mais dafa weesu woon moom tarixa umma bi la doon liggéeyal umma islamique bi yëpp

dalee ci président de la république premier ministre ministre intérieur pour nañu ni ñu leen doon jàppalee nañ leen jàppalee lu ko lu ko raw pour kër màggal gi nga xam ne mooy premier màggal bu nga xam ne ni moom nañu xale bi woon gannaaw duñ sentir dara dara dara luy niroo luy manqué ci organisation parce que nañ ko yéene te ñu ngi ñaan yàlla mu dimbale ñu ci ba tax na ba Euh, CDD bi préfet département Kébémer mu jóg ka présider euh, le 10 ñu waron def CRD bi far li le 10 mu tombé ak sëriñ bi dudd ñu basé won ñu nañu yow ba basé ci lettres euh, recommandation CDD bi dañ ko en lettre waaw lettres sont ma ko

ne serait-ce que ñu à la mémoire sax di defoon xalif général ñu tax ñu war a tenir CRD bi ne am nañ naqar waaye nag fañ ko doon jaarale rek nañ ko fa jaarale ba bu kenn remarqué ne am na manquement moo tax ñu def CRD bi CRD bi nag li ñu ci décidé bu soobee yàlla dinañ ko topp lu jëm ci sécurité lu jëm ci ndox lu jëm ci éclairage lu jëm ci sécurité alimentaire lu jëm ci affaire assainissement lu jëm ci wér-gu-yaram et cetera et cetera bu soobee yàlla bëgg nañ ci ànd ak yéen ñu ngi gërëm yàlla nag bu baax a baax baax di leen sant ci kaw bi ngeen créé nag maintenant cette fois-ci ben comité ko bu coordonné carrément màggal donc chef de service yeb dinañ joko ak man mu joko ak coordination bi joko ak yow en tant que porte-parole pour que liñ ci décider yeb bu sobe yalla ñu mën ko ñu mën ko ñu mën ko réussir. allahu nak li ñu fi tëral nekk ak gouverneur nekk ak autorité yi ñuy sàmmonteeg sàkku ci ñi nga xam ne dañuy màggal si charte yi ñu fi tëral yëpp ñu sàmmonteeg moom képp koo xam ne da yor sa oto nga bañ ko surcharge ku yor jakarta nga bañ ko faa indi lépp lu ñuy tere te duwaan ko tere te amoo ci droit nga bañ ko dugal ci oto di ko indi Mbàkke Kajoor ku koy def itam des na ba jëflante ak yow ñu xam ne màggal nga itam mën a wat matukaay yuñ ci war a jël dees na ko fi jël képp koo xam ne da nga ci bëgg a indi désordre dees na ko jëflante ak yow ak koo mën di ndax dëgg kenn du ci masla dëgg kenn du ci masla kon monsieur le gouverneur maa ngi sant sama cant bopp ndax màggal gi ñaar fukki at ak juróom ma koy jiite dara mosu cee màngi lépp lu ndox nekk ci loxolu état dañ ma koy jàppandal ba def ca loo xam ne sax dañuy wax ne ëpp na ndax daaw oto yi bi ñuy dellu ñëpp yóbbaale ndox dara mosu cee màngi kon maa ngi leen di sant sama catu bopp di ko sant say kilifa ministre de l' intérieur premier ministre président Macky Sall di ko ñaanal bu baax tam ndax gis nañ njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara kóllëre gi mu am ak ñoom ak kóllëre gi mu am ak njabootu Cheikh Mouhamadou Amine mi ngi koy sàmm te dugal na loxoom ci njaboot gi dugal na ko ci màggal gi màggal gi incha allahu fukki fan ak juróom la le 15 février lañ ko daal lañ ko daan defee dañ koy def ci Mbàkke Kajoor le 15 février incha allahu mooy màggalu Mbàkke Kajoor nañ ko daan defee itam dara du ca bu lépp incha allah nañ koy lañ koy defee ñu xam le itam ni dafay dëppoog ñeent fukki guddi sëriñ bi ñu sàkk ñëpp ñëw ci te li koy def nag mooy njàngum alxuraanu karim la ñu sàkku ci ñëpp ñu def ko léegi itam sëriñ Sidi mooy président comité pilotage bi ma bëgg a fam numéro téléphone am joxe ko képp koo xam ne yaa ngi ñëw soo ma mënee jokkoo man baax soo mënut a jokkoo nga jokkoo ak moom 77 la 637 68 067 637. 637 08 67. 637 08 37. moy 67. 637. 08 67. 67 monsieur le gouverneur ma yeesalaat rek ngërëm yi ak xamna damay rek waye sama xol xawna sori. sori na waye du tay ñu li ci ñu rek ñu sant ni ma ko daan waxee ndax màggal gi suñu ko tegee ci sama loxo te dara mos cee manqué yàlla ak yéen la ñun nag ñi ngi fab suñu loxo tey lañ fab suñu loxo gën leen ko tàllal tàllal fa suñu yéene itam kër Cheikh Mouhamadou Bara dara di ko róor wala dara di ko di ci yàq loolu moom insha allahu danañ ko fekke du ñu wax duñ ko fekkee ñu may kenn di ko def mm-hmm. suñu àddina suñu dund mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Bara balañ koo xamoon Cheikh Sidi Makhtar mi ñu nekkaloon mu nekk xalif général de Mouride bu fekkoon ni nit dina nekk xalif général de ba yàgg nga bàyyi keneen nekk ko soo ko keneen nekkoon tamit dul kenn duñ gis feneen dafa fekkoon ni dañoo nekkoon doon liggéeyal Cheikhul Khadim Cheikh Mouhamad Lamine Bara ba Cheikhul Khadim fekk si ñu ñu ànd ak moom ci biir liggéey boobu waaye la ciy biir kër Cheikh Mouhamad Lamine Bara mooy liñ ci ñor ba tey nag loolu mooy suñu taxawaay kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp gouverneur di sant la presse ni ko sëñ si di waxee